tabur salim ak Mboudaye bu Ngoundiane arbitre sifflé na combat ba Toubacouta doomu Kër Moussa an mom mo final ci individuel yi Buur ak Mboudaye mburu Matar Matar ak jaju ak Mandiang tal. di bëgg waa campement waa Kër Moussa an bu daay doomu Ngunjaan Fallou Gala Sène borom jaay jaseer kan Ngunjaan bëgg naa ko borom mburwaay ale yang ragai ne kero gai nganga jamar dena antel mudai tuba kuda eh tuba ya buran mudai top sen welelelel tuba acha open bangi nonu premier combat Modou Diam Terry Caaka Faye Diam Terry seen tur bu la Caaka Diam Terry ak Caaka mi lay bëre tournoi open drapeau chef de l'État 13 mai 2023 à Saint-Louis Modou Diam Terry mbëru Ahmed Kara waaye mbëru Mbaye Diouf bi koy production ak caaka fay biram kungkung abi sale mamadou borom ko fay ziar na la fan suma du jam teri bi di mané borom ponto saren 80 kilo bege wa ko bangoy demi le 3 juin

alengor kenayo tima ke fanyo leyna jekkier maxa diop saint louis ibrahima ndiaye dakar modou jam teri caka fay maxa diop saint louis saint louis ibrahima ndiaye saint louis deuxième round Modou Jam Téeri Caaxo Fay jël nañ pause ñëwaat Dakar ceinture bleue se prépare Saliou Faye Tamba eh Caaxo daan na Modou Jam Téeri Caaxo daan na Modou final par équipe Badara internet Kaolack siini semaine siini rouge bëggee waa Mar Fafako internet sini budon doon bi ñu ne dugal kañe ndaysan Cheikh Mbagnick Ndiaye ma koy siyaar bu baax coordinateur trésor du Sénégal borom sikaturum borom Dofane la ngem di nuyu pap Diop agent pénitentiaire ta Diourbel jarbatou Cheikh Ndiaye la Babacar fa tew la Babacar Ndiaye di bëgg wa salum lepp Samba jawara sar borom kutal wa kaulak wa ganjay wa waa ngoy sédér sama dëkk ma ngi di nuyu di bëggee arrondissement Fimela yëpp rajaxela ak Ibou Ndiaye boli Dakar ak Kaolack Dakar 2 Kaolack 2 Dakar mo ñëk am 2 Kaolack remonté ba def 2-2 ndax da koy valider wala Ibou jaay da len di arrêter ñu leen di wax ndeysaan tout droit Koba Ngoye ñu ngi Alamidi bi ñoo fa wote lamb samedi le 3 juin tegal mbëri 1 million ci benn drapeau suñu dëkk ndeysaan sargal Ibou Ndapha parrain bi de monsieur le maire de la commune de Fimela l'honorable député Karim Sène invité d'honneur Alpha Sambou Ibou Ndiaye responsable de l'État. Djalko 2022, Djalko 2023. Nous nous. Dakar remporte la compétition. Et qu'il y a des pour nous dire mbokki amateur lamb yi kobongoy la ñu jëm fekk fa Lamine borom Lamine TV muy organiser tournoi de lutte traditionnel bu mag samedi le 3 juin 2023 fi ci kobongoy nekk ci commune bu fimla Lamine TV ne ma ah kobongoy nak moy sama village natal lepp lu ma mën di am kobongoy moo ma ko gënal l'olé tax mu organiser fi lamb ju mag mise bi di 1 million de francs CFA lolou di nekk nak drapeau l'honorable député monsieur le maire de la commune de Fimla, kooku di Karim sen Abdou di jëmm ji nga xamante ne bii fi mu fekk fi mu laa ak fi mu andi fi mu laa tey ñëpp ci teg seen bët liggéey fi liggéey bu am solo ma ne ko ah Lamine TV kan mooy sa invité d'honneur mu ne ma miss Alpha Samb maire de la commune de Nguéniène wante nag mu fas yéene cee sargal Ibou Ndapa suñu papa ancien lutteur nga xam ne yóbbu na turu ko ba ngay fu nekk ci Sénégal. àdduna bi animation Mbayang Loum ak Amath Baboukar mbokk yi samedi le 3 juin 2023 fii ci Kobongoy nekk fii ci commune bu Fimela ak Lamine TV mbër yeeg amateuru lamb yépp fii la ñu joxante rendez-vous ndax nee naa la Lamine TV bu wootee ak lu lamb kenn waru la des Lamine TV di première chaîne YouTube ci Sénégal ci wàllu lutte simple ndax liggéey bu am solo bi muy def kon yokk leen abonné yi ngir gën ñoo dooleel di commentaire tey laal j'aime wante bu leen fàttee laal cloche de bi am suñu information yëpp à chaud kon le 3 juin fii ci Kobongoy rang muy suus tout droit à Kobongoy fii ci commune de Fimela ak Lamine TV. Ibou Ndiaye Obali Cheikh Faye ñaari poids lourd Obeuli Diofior Dakar Thiaka Faye Kounkouŋ Kaffrine la ñëw yaramu ye Doudou Mbaye ma du xoyaadum te kenar neke ñaari diriyanke ñoo daje fi Thiaka Faye Ibou Ndiaye Obeuli Obeuli plus de cent du xoyanum te kenar neke fasa o boli a Thiaka Faye Caaka daw na jël tànk ba mais man nag wax dëgg fa yàlla suma sañoon ñu changé règlement yi ci chef de l'état bi dindi trois appuis bi dindi jàpp ngemb yàqu temps bi tuuti bëre mu ne feeñ mais trois appuis booy bëreeg moom bëre di moytu doo ñemee jël risque su ko defee gaay dañuy buuxante wasu ndun joti nyam bato alaji teddi dam yamin jobna wasu ndun joti nyam bato o fo gandu ni siare anun nyojor bo foyako jon war sar fal ye munde chala no siwo bo maya jam jirnda bawut yo foog ñam baato di siyaare a den mitan ya dam tuna pasi bo sokon bo misira bo tuba kuta bo karang ber mbulum sa de pap sar njom dole jara tenero jara jinak caka fay ibu njaay aboli ñoom ñaar yëpp Toubacouta moo leen gën ci individuel yi plus de cent kilos yi Thiaka maa ngi leen doon wax ne règlement chef de l'État yi nañ ko indiwaat lambu Sénégal chef de l'État ñun ñoo ko moom 100 pour cent Sénégal la jarul tax ñu ci appliqué règlement wu keneen gars bu ñu dem CEDEAO woon ak wala feneen ñu yóbbu leen regroupement waajal leen ci loolu mais chef de l'État c'est purement sénégalais nañ appliqué règlement wu mbapat bi man loolu laa gis lamb ci neex na bërëb bi neex na mais mënoon naa gën a neex.

Ndeer Ibou Ndiaye Diofior ak Garna Dakar Ibou Ndiaye door na ko tànk daan la xay la la daan na w o bizim teknik Papa Ngane Sossokh bu daanee mu nekk 2-2 su boobaa dañuy am la finale de la finale Sossokh jël na sele Sossokh Papa Ngane ngolli na la ilaha illallah Djily Sarr mbaru Palestine Lamine doomu Nganda gi ca États-Unis xolam ba sedd na sama tooba Lamine ziar naa la papa Nganda fiya a fiya tig